Ada ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. félicitations. Euh, tey gis nañ euh, kër gi ñëpp am émotion ginnaaw ba nga xamante ni yaa ngi duppee sa tur tànk bi sa yaay ki la yar ki la dugal nga jàng alxuraan tey mën nga ñëw tuuti rek sa diggante ak moom. waaw suñu yàlla suñu lépp la ñu dugal alxuraan yar ñu xamal ñu lu si àdduna suñu yàlla daal amaana suñu borom dafa dafa dëdd àdduna daal. kon kooku suñu yaay la loolu bis bu ko tuddee tamit loolu kontaan contentement rek waaw naka suñu yaay la waaw suñu yaay la loolu lay xarit ko sama ba ñaan su mm-hmm. dañuy faral di wax ki la yar ak ki la jàngal kenn amul fayam tey lan la nga dund ak moom loo xamante ni moo la gën a marqué. waaw moom suñu yaay la suñu yaay la kaw ñu dund ak moom bëri na ndaxte dañoo yar digoon ñu alxuraan xamal ñu diine ak lislaam yoon bu baax. kon kooku noonu amuñu fayam ama ñun suñu xel dal na daal waaw ñun suñu xel dal na yar nañu si lislaam si diine suñu borom loolu la wax ba amee sa njaboot ah, nga yar leen si diine te moom def na ko waaw suñu xel dal na si moom bu baax a baax ñaan suñu borom yàlla na su si kawam. tey aada lan mooy sa diggante ak say fan dañu gis ni que tout le temps su aada xewlee su aada soxlawee. ñu bàyyi seen lépp daal di ñëw gis nañ tey organisation bi déplacement bi ci suba ba tey ñoo fi nekk yore sa lépp. waaw leer ndaxte man aw ma seen fay quoi ñun ñu si jàpp tamit mooy loolu bëri na quoi. ma seen tamit doomu aadama amul lu dul bisam te bisu doomu aadama moom lu mu tuut tuut bu ko xeeb te gis naa ne xeebuñu ko benn yoon waaw di leen ñaanal jàmm bu bëree ne man kontaan naa bu baax su ñoom ñun ñëpp du ma limee rek damay juum ak service ku ñëw ci bés bi boo ñëwee li leen njëkk a mooy photo ku tedd ki muy Cheikhul Khadim aada di wane ni que moom murit la taalibe la mën nga ñëw tuuti rek sa diggante ki nga xamante ni mooy ku tedd. waaw loolu noonu mooy loolu ñun ay Baye Fall lañ ay Baye lañ ñun ay Baye Fall sax ay taalibe lañ taalibe waaw ah à ndox mi yóbbu ñun ay jurit lañ. ay jul lañ te ay taalibe lañ te yoonu sëriñ Bàmb tamit dañuy jaayante daal ñu koy jaayante amaa lii daa nekk lu gën rek waaw daa nekk lu gën su ñun moo tax tey mu demee nii waaw mooy ne indi saar bu bëri doole mooy saar soxla moo ko fii waaw dañuy dëggal jubal rek di leeral chaque chaque jour chaque heure noonu la demee alors loolu mooy dëgg mooy dëgg su ñun rek amaana laamu mooy loolu laamu beneen beneen beneen facette la quoi lii du laamu tey nag boo ñu fekkee suñu suñu milieu ñun dara lañ fa mais duñ ko wane amul amul sens quoi te àdduna fii loo fi doon doon am na keneen ko la gën a doon loolu d'accord àdduna amul solo fii bu fii bu fii ba l'an 2001 ah, mun ñu jaay suñu samay supporters lu leen loo xam ne tey kii na leen daal kon tey jii man taalibe rek laa mën a dund ak ñoom ndax tey dañuy bàyyi seen lépp ñoom waaw di leen ñaanal jàmm bu baax di kontaan naa barki Serigne Saliou waaw kontaan naa bu baax. looy wax tey ci euh, mais couple bu bari coow couple ba léegi aada mi ngi téye tey di ko ñaanal jàmm rek. Mm-hmm. di ko ñaanal jàmm bu baax baax. waaw jigéen moom amul mag amul ndaw sëy moom amul mag amul ndaw yàlla yàlla moo ko wax te du affaire caaxaan waaw la daal nga ñaan mu gën a muñ rek jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la ak tamit li wax rek jigéen sëy jigéen sëy li ñuy wax rek jigéen loo rafet rafet rafet waaw loo kon boobu boo sëyul amul njëriñ amul njëriñ daal moom jàmbaar la waaw ba si ay moroom yëpp lakk laay wax waaw bu ñu gisee góor dañuy yëy quoi dañu dem sëy ji du bàyyi xam nga rek tamit dama leen di xam nga tamit du ma lu ma leen conseillé sax na rek lañ samay sër lañ jigéen yaay la ëllëg di nga toog nekk say doom gisee comme boog sëy nañ dem sëy ay jigéen nañ sëy ji sëy mooy dëgg daal mooy dëgg dañ lay fan moom nan lay supporter loolu ndax du fiir waaw loolu mënut a ñàkk naa si si milieu bu nekk la mais euh, man ndey mi léegi maa xam sama bopp rek xam li ma bëgg waaw xam li ma bëgg quoi waaw xam li ma bëgg loolu kese la jigéen ban contentement nga am am doomu jigéen. loolu mbégte la doomu jigéen xewal la te doomu jigéen li ñu wax rek euh, por bu tujjee la daal waaw loolu yàlla loolu yàlla <laughs> waaw moo tax tey sax ñu ñu ñu ñu ñu comporté ñu ñu comporté woon ni ne tekk xam ne instant yàlla dañoo dénk te dénkaane yombul daal dénkaane daa fort waaw dénkaane tuuti ci làmb ji ñu bari ne nañ aada Siteu la waroon bëreel mais pas guy gi ndax aada ak Siteu dañoo xiifante looy wax ci loolu. non sport la rek tey amaana bu ñu aada pas Siteu tey de gars yi dañoo jàpp ne làmb ju bu neex làmb ju neex la sama mag la moom jur si làmb mais kon li wax la waaw kenn reenu kenn xamul fu muy demee amaana kon tey ren coow li mun na jóg mais déwén yàlla xam leneen luy xew te li may wax rek man moom chaque jour dama am tànk avant quoi amu tànk derrière te loolu moo nekk si man te loolu laa doxee non yaa xam te moo ndaxte nekkee maa ngi prouvé ah, nekkee maa ngi prouvé dinaa bëri moom xanaa mu génn làmb wala man ma bàyyi alors duñ duñu dem té duñ ko lacc lamb bi nga xamné mo wara am dimanche digënté ki nga xamante ni moom mooy euh, Zarko ak jeen euh, kayré non man dama am lamb mo rek guy gi laa man ak guy gi ñooy bëre du wax si lamb jaamu quoi d'accord mm-hmm. légui yow ak guy yi wa yalla ma yalla may ndam ci si kaw waaw amagul dat mais na am dat léegi aada ñu bari dañu doon gis gis ne guy gi ñu ne instant bi aada fu mu nekk guy bu ma ko jàppee guy gi paal xalaatuma loolu. waaw laamu ji daa am fu ma bëgg a yóbbu daa am mën a yóbbu si laamu quoi. laamu ji lu ma wax rek ñu yeewu nañ màgg nañ laamu ku ne ma bërek ah, Zarko Zos bërek ay mbër kon màgg nañ laamu kon nekkul guy gi moo ñu mën a déstabiliser déstabiliser wala dara amaa ñu ngi si entraînement laamu sport entraînement moo koy daan dañu ngi si kawam kon amuñu xel ñaar quoi incha allah man maa amoo xel ñaar. aw ma xel ñaar non moo ko te gëm naa ne suñu borom incha allah waxuma la ndam lu raw ndam dama koy am fi ñu jëm kon li ma wax rek ragal ma fu ma jëm mooy lan dama gëm li def ñeme ko waaw ah, mun ko quoi nekk xale amaana moo tax bu ma ne ragal ma fu ma jëm gars yi defe ne dara la mais dara loolu entraînement bu ñuy def nekk si bëgg ko lu sport daf ñu a ah, lu sport ah, bëgg ñu koy lu muy tere ñu koy du sa ba ko bàyyi waaw sama relation moom suñu mag la suñu mag la ñu ñëpp waaw suñu mag la daal. waaw waaw loolu kay li ñuy tuumaal mooy am na loo xam ne tey jii waaw buy wax surtout Gris moom suñu mag la daal te amaana am na loo xam ne tey jii buy jug tey jii amaana ñun nekkul ñu nekkul nekkul suñu mag la ñun ay supporter lañ mais amaana am na loo xam ne tey jii nit tuumaal doomu aadama dafa fort loolu baaxul jullit du ko def. amaana waaw am na loo xam ne bakaar la te bakaar am na bàkkaar yoo xam ne baaxul si doomu aadama da lay topp waaw ngir kilifa la quoi am na kilifa moom nu mu mënti demee kilifa dañ koy suturaal nekkul noonu daal amaana te am na ay doom am na ay doom te doo ëllëg du xam fan ay doom taxaw ñuy wax si si lu ñaaw waaw kooku noonu tuumal ko loolu na xoolaat quoi na xoolaat moom boppam xam na ne am na waajur bu jigéen na waajur bu góor waaw te am na ay doom waaw na delluwaat si xolam quoi ndaxte biir dafa te waaw na rafet na rafet daal ñoom suñu gànnaaw la di ko di ko ñaanal rek di ko ñaanal rek di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax nga ne suñu gànnaaw di ko ñaanal jàmm bu baax. non pajo sama père la père kaa ngi sama papa la sama lépp la. ma ñu koy si moom laa nekk mooy entraînement woo waaw. di ma entraîné kii bu ma ñëwee voyage mu laay nekk palmu laay nekk si moom sama père la sama lépp la pëccoo waaw di rakam comme